combat la du bataille donc combat da fay jëm ay at ay at première terminus bi bu njëkk bi premier fi car bi di njëkk taxawé moy 2024 fi ba 2024 nak dafa am compte yu bari bari yuñ ci wara régler dafa am lu bari luñ ci wara a li <coughs> daf ñu dab ci suñu yoon mënul ñak bu fekkente ni dañu fogg ni téye biñu ñu téye Guy Marius otage moo ñuy découragé loo wala moo ñuy tax a le combat ñu ngi nax seen bopp ñu ngi nax seen bopp c'est des jeunes yoo xamante ni seen euh, euh, l'avenir de la génération euh, future daf leen ñor ñu ciy taxaw donc amul lu leen di divertir amul lu leen di décourager, amul lu leen di tax a début bi ñu bëri nañ né affaire bi du demee ni mais bo qui nu mu demee ni sa xel day dal da ngay xamné ay sénégalais yu bañ ba légui amna ay sénégalais yu contre l'injustice surtout l'injustice que subit actuellement l'un de nos camarades muy Guy Maris. et injustice bi nga xamné sénégalais yëpp ñokay subir à travers ñom sen cuune moy yok bi ñuy électricité à denrées de première nécessité donc il y a des sénégalais qui sont là qui continuent le combat et qui continueront le combat Ben, affaire rek la si mëna yok moy gis nañ buñu bu au niveau du camp pénal yaram yi xawoon na tàng am ay jeunes yu bëri yu ñu japp sax yóbbu ci ginnaw koñ yi pour calmer len mais arrivé à un certain moment ces gens là on pourra plus les calmer on pourra plus les retenir donc li laay war a nañu baye doomu jambour bi té nañu wañi courant bi. courant bu ñu jël tamit teg ko si ndoddu askan bi askan bi attanu et je pense que tey am à ay poches yu ñu mën a dem fa pour def seen investissement bu ñu war a def waaye warul nekk poche askan bi moo tax mobilisation bi dañ koy rafetlu combat bi dafa war continuer dañu war continuer di faire pour Sénégal dañu war continuer pour faire pour njëriñu askanu Sénégal appel citoyen à tous les citoyens parce que pour qui fay courant tu dois être concerné même su dee fayoo courant xam ne ñuy fay courant li leen teg dafa ëpp donc euh, yokk bi c'est pas normal dañ nañ ko wàññi beneen bi mooy franchement Guy Marius Sagna moo xam ne dañ ko dañ ko ambassé dañ ko tëj si ay anam yi nga xam ne pour ñun du yoon dañ ko jaay doole rek donc moo tax ñu ñëwaat encore di dénoncer loolu naan nañu libéré gii ñaari yëfe yooyu moo tax ñu ñëw fii